Comme toujours dans votre euh, journal people de la semaine la présentation c'est Tange dañuy dem ci actualité musicale actualité musicale bi concerné euh, le chanteur du peuple l'homme qui a émerveillé tous les cœurs euh, des Sénégalais des Africains Moui, le jeune Faramareen le chanteur du peuple Wali Ballago bi nga il a bouleversé la hiérarchie en dix ans le ñëw chamboulé musique sénégalaise indi ci def ci jéego boo xamante bu doy askan bi nag ñoo jël kenn forcé ko nit ñi askan bi ñoo ko def seen xol te ku askan bi def seen xol nga war a nangul loolu askan bi li olof Njaay di wax taal bu yàlla taal nga sànni ci matt moo gën nga fay ko jamono jii ñu génn gis nañ ko mu génnee ñetti teaser teaser yu am solo maanaam ñetti son yoo xamante ni mi ngi koy waaj maanaam mu indiwaat créativité ci wàllu musique benn bi mu jëf ci benn featuring ak la Jolof di la reine di Jolof bande di Viviane Chidid maanaam vidéo bi ñu tourné ko m doon affaire bu doy waar boo xamante ni bés bu génnee Sénégalais yëpp dinañ xam ne bi ñu gis ko ak benn rappeur boo xamante ni dafa am avenir xale bu ndaw bo xamanteni muy Samba Peuzzi ba mu ñëwé indi silam indi talent gaay gëmuñu ko won mais li ñuy wax rek nit ki da ci lo nekk da ngay gëm sa bop bu do non lu doy waar benen mu and ci benn star international muy ñetti teaser yo xamanteni ni teg na ji son yu su génné wara mëna cartonné toj dëkk bi demono ji fo tourner ci TikTok bi fo tourner ci réseaux sociaux yi fo tourner à travers le monde ñëpp kenn lañuy waxtané moy wali balago Ballago lu mu nara defati lu mu nara tégati donc muy lu doy waar jamono ji muy spectacle boo xamante ni macha allah mooy ñetti teaser yo xamanteni bés bu génnee nga xamanteni Wali Wally Ballago Seck comme li mu jamono ji man damay xol ni may conquérir l'Afrique suma conquérir l'Afrique ba pare dem xol ni may conquérir international ni ko Youssou Ndour defee won Baba Mal def ko Ismaïla Lô def ko man aussi fofu la bëgg tek sama tànk muy un jeune bo xamanteni dañ ko wara encourager féliciter ko mu def lu doy war cotidiano